dal leen ak jàmm mbokku internet yi lu doy waar ëdëg ci yaawo ma nga jaay ay laa laayam yi nga xamante ne jot na ko sol ba noppi ana lu muy jar ëdëg ci yaawo ne cinq millions de francs CFA yeew waay samba Odiawo defati na mbir mu reetaanlu bile yoon dafa génn ca Instagram ba moom Giga Boba Raba bu Côte d'Ivoire di fa siiwal ab entreprise bu bees bu mu tijjeew di ca jaay ay njiitlaay waaye yéen njiitlaay la cay jaay ay ayu bés ginnaaw xew-xew bu doy waar boobu nga xamante ne moom mooy anniversaire ki nga xamante ne mooy Emma Lawo sa Odiawo moom itam génn na waneeti boppam ca ab publication bu mu def ca compte Instagram am moom Odiawo de xam le ne mu ngi tijji ab bu bees di ca lu ñuy woowee lingerie maanaam lépp lu jëm ci wàllu njiitlaay boole kook nataal yu doy waar ngir publicité markam bu bees boobule ca geneen wàllu Kim Kardashian mi ngi def ab post ca Instagram ba di wax ne kuku mes damay jaay ay njiit laay te cent dong lay jar bataal bataaxal bi nga xamante ne moom la Kim Kardashian bu Afrique bi di Adexia wa dal di eh, posté ca Instagram ba mooy kuku mes bébé damay jaay ay dessous yoo xamante ne cent dollars dong lay jar waaye li doy waar ci boobule entreprise mooy kile di Adexia am xamante ne moom ëdëg si yaaw ci boppam jot na ko sol ba noppi te yooyu le mi ngi jaar lu ci lu toll ci cinq millions de francs CFA boobule xibaar nag moo toj mbir mi tasar ba ku ne di ci commentaire man moom sama bos dama koy denc Tactic TV mu ngi leen di jaajëf